kër ah seet sil ki nga xamante ni moo di soxna Nafi Fallou Fall soxna Nafi Fallou Fall aka doy a la voyante guérisseuse mbokk yi adresse baa ngi noonu cité Aline Sow laalati man sama kanam ci ñëpp mu ne ko sa loxo bu mu ko laalati ñëpp a ngi taxaw mu ne ko Omar mu ne ko ah mu ne ko yow laay waxal bu ko laalati sa loxo bu mu ko laalaat dugg ci oto bi na ko wax naa la ko nag ma waxtaan ak Baye Sall fii ñi doon dóore bu amoon kuy dóore xanaa Baye Sall lay doon man Baye Sall laa tooñ Baye Sall laa nekkaloon moom laa doon xulool Baye Sall ba ma ñëwee ñoo doon waxtaan ba nii nii léegi léegi maa ngi doog a yëg sama néeg taal live bi sa sànq ba tey ñoo nekk di toog di waxtaan ma ak moom barki Serigne Babacar Si sànq sa su sa ngoon ba tey ñoo toog di waxtaan Omar kenn tooñu ko Omar kenn wax ko dara mais faaw mu xaaj ju tuuti ci kanamu waale pour maanaam sixième gën a yokku ci kanamu waale comprendre nga mais waali rafetlu wu ko man maay wax jën li xew tey waali rafetlu wu ko. barki Serigne Babacar Sy Wally Ballago Seck rafetluwu ko Wally ba mu ne taj wàcc ascenseur bi Baye Sall la njëkk a dajal ne ko lu xew Baye Sall ne ko Omar moo doon jàppanteeg Adama Wally xool ma ne ma kaay kaay kaay kaay ba ma ñëw mu ne ma lan la ma ne ko Omar de moo ma dóor jote ma ak moom dara mu ne mu ne Omar lu tax nga dóor ko mu ne ko da doon nekk ci internet bi di wax man mën naa wax ci sama jëmm Omar Ro mooy wax ne nee na ko mën naa saaga sama ndey mën naa saaga sama yaay. man naa saaga sama pàppa sama jëmm ji bu ko neexee lu ne mu wax ko ci waaye yow përle mëntu ko mu koy wax waali ne ko kii tooñu la man la tooñ su fekkee ci man lay wax man lay wax ba mu yëkk ay téléphone am di wax lu baax da ko daan wax sant mukk ko bu demee ba wax leneen man moom la yaa ngi dégg ne ma ak lu mën a xew man la tooñ jëggal naa ko ci xol bu sedd guy sëriñ Serigne Babacar ci kanamu ñëpp ci kanamu gab ci kanamu Baye ci kanamu met shop ci kanamu ñaaxarañ loo ci kanamu moom mooy omoro jéggal naa ko ci bu sedd guyu bu ko laalati bu ko dóoraat te sa loxo bu mu ko laalaat ne Cerno Gajaga mu ne ko ah mu ne ko bu ko kenn laalaat ñu génn ci biti ba nu génnee ba ci biti ñun ñëpp ñu taxaw man maa fekk ba laa ko sekk fi mu taxaw ma jox ko loxo ne ko Waly bu fekkee dama laa def dara maa ngi lay jéggalu mu ne ma déet Adamo déet yàlla nu yàlla jéggal ñu ñëpp dem bay dugg ci oto bi tourné waat ne ko Omaro ba muy ñetti yoon mu ne ma nag mu ne ko ndigal laa la jox sa loxo bu mu ko laalaat Thierno Gadiaga kii bu ko kenn laalaat fii nii la kaa bi demee keneen ko ci wax leneen da ngay duul keneen ku ci wax leneen da ngay duul sëñ gis naa ko mu def live ne dama ñëw ci ñoom waali yi ah ci ñoom kii Pascal nee na ñu dàq ma Pascal nee na fa la ma fekk nangam nangam Pascal bu la ko waxee waxul dëgg sëñ Bada man maay wax ak yow de Pascal bu la waxee loolu waxul dëgg démb laa fi ñëwoon kër gan demoon xaw ma leen xaw ma kan mooy Annette Seck xaw ma kan mooy maire bi sëñ Bada kër googu noonu Pascal moo ma fa yóbbu Pascal a tax ma xam ko man la woon ñaaxarañ loo met shop njaga euro garde koolu Wally Seck muy Cerno Gajaga hmm? bu dee woon ak Pascal du dem kër maire bi. Pascal moo ñu fa yóbbu maire bi yàgg togg suppu kànja ñu dem bay añ ma ne leen man sama teree ñëw na damay dem ñoom laa fa bàyyi ngay wër di duul naan dafaa dem Pascal bu la ko waxee day duul am na ay seede yow boo ko waxee da ngay fen man duma dem fu may toroxale du ma dem fu may dàqe man dama du dem kër nit sax ba fay toog man du ma lekk kër kenn du ma dem kër kenn amul kuy toog naan ndax Sénégal dama leen a xam fii la ñëwoon maa ko hébergé woon fii la doon añe mus sa am ban la ko waxee nga war a xam ne dëgg man amul ku may dem këram amul fu may jaar man du ma dem kër kenn xam nga kat moo taxoon ma yàlla ak Pascal moo taxoon ma dem kër meer boobu dama ne la yàlla ak Pascal moo taxoon ma dem kër meer beebu ndax moom moo xam meer bi man xaw ma ko dan doon dem ma topp leen ànd ak ñoom moom moo xam meer bi moom moo xam ñoom Annette man xaw ma leen meer bi nag ku baax la yaayu Annette ku baax la togg na lekk yu neex ba ñëwee soutenir nañu teer nañu lu baax Annette tamit nit ku baax la ay nit ñu baax lan mais damay wax dëgg Pascal moo tax ñu dem fa xaw ma ko xaw ma maire bi man maa ngi doog a ñëw ba ma ñëwee sama hôtel laa jël jubal si fi directement ba ma ñëwee sama hôtel laa jëm fi Wally Seck dal nekk fi fi laa jubal si directement jël sama chambre dem toog maa ngi sama chambre bàyyi saala ngi nii chambre-am ak Omaro di ma dégg ba barki Serigne Babacar Si waale ngi ci kaw ñoo bokk ñun ñëpp fi nekk amul fu may dem kër kenn njëga euro gi fii tamit awma ci ku may dem Youssou jege ñëpp ñoo bokk fi nekk ñun ñëpp a ngi fi dew ma kër kenn kër kenn dew ma fa seetiwu ma kenn seetiwu kenn musumaa dem kër kenn nii la kaa bi demee leneen luñ fi nettali ay duul la man duma ma sosal nit du ma wax nit lu mu waxul duma wax loo xam ne nii ay foo man lépp lu may wax dafa am fu ma ko teg ñi may waxal ñi ngi fii nekkuñu senegal saa la ngi nii di ma dégg omoroo ngi nii bu ma leen faneloon lu toll ne benn baat mënoon nan ma fëgg léegi ndax ñoo dend ay néeg barki Serigne Babacar si mënoon nan maa fëgg léegi parce que li may wax dëgg la ci man Pascal bu dee moo ko wax bana day fen waxul dëgg ndax foofu moo fa demee yàlla ak moom a tax du dëgg Wally Seck na kàddu yi mu wax moo dawloo sama yaram ma ne naa bàyyi lépp mu sedd mais kon Omaro mënoon naa ko indil problème bu mag fii ci Allemagne kooku man maa leen ko wax man Adama bu nga ngadde Omaro mënoon naa ko indil problème bu mu dut fàtte ba mu juddoo ba tey billaahi mais defuma ko ci jëmmi Waly Ballago Seck ci jëmmi Waly Ballago Seck ndax dafa ñëw wax waxu kilifa Waly waxu kilifa la wax ba mu wàccee waxu kilifa la wax barki Serigne Babacar dañoo woo ba ñëw ñun ñëpp ñu taxaw mu ne ko waroo ko woon a laal te sa loxo bum mu ko laalati barki Serigne Babacar si wax ay kàddu yu daw yaram ne ma man la tooñ jox ma loxo bi jéggal naa la ci xol bu sedd guyu ci kanamu ñëpp moom mi doon wax pour waale xool ko sax da doon wax di ko xool mais waali nit ku dëggu la waa lim def ci kanamu ñëpp la ko defee ci kanamu ñëpp yëfu kilifa la def yëfu kilifa la waali def Omaro li mu def kenn sant ko ko da ko doon def maanaam pour lu neex waali mais c'est dommage yéen mën na leen a neex mais neexul waali ndax waali xam na ne li mu def yëfu dof la ci kanamam la ko waxee ne ko war ko woon a def te bu ko laalati sa loxo bu mu ko laalaat mais yéen mën na leen a neex parce que aadama moom ay noonam dafa bëri parce que ñi mu sonal dafa bëri mais waali rafetluwul loolu rafetluwu ko de dama leen ko wax léegi yëfu dof la def rafetluwu ko kooku man maa leen koy wax man waaw kay léegi nag nii la cas bi demee woon ma ne dinaa leen ko wax pour leeral leen ko ñi ngi ci jàmm nag man ak Baye Sall ñi ngi ci jàmm ñoo doon waxtaan léegi léegi léegi la dugg néegam nii ma ne ko Sall man maa dugg sama néeg mais damay taal live bi ñoo dend su néeg yaa ngi nii benn la waaw Baye Baye ñoo dend su néeg yaa ngi nii benn la ñoo dend nii Baye Sall ñoo dend ay néeg ñun ñëpp suñ néeg yaa ngi nii dama kaa gunge ba mu dugg néegam ma ne ko maa ngi dem sama néeg mais damay taal live bi mu ne ma waa boo commencé ma ne ko waa bu ma commencé naa la def signe nga seetaanaale ko man awma lu may fen xam nga kuy fenal nit da ngay fenal ñu nekk Sénégal ñoo nekk ñi ma tudd fii ñëpp ñoo nekk muy Thierno Gadiaga Met Shop ñaaxarañ loo ñun ñëpp ku ma waxal rek nga tudd la fii rek dëgg la man lu ne naa ko def ba mu des fen du ma fenal Wally du ma fenal Baye duma fenal Omaro du amul ku may tudd fii dina fenal amul du ko def man damay wax ni mu demee yéen su neexoon ma ñëw fii joteeg Omaro ñun rek a fi nekkoon di kan mooy xam ne am na lu fi xew déedéet mais man maa bëgg di expliquer pour ngeen xam yoonu kenn newu ci pourtant mënoon naa bañ a def vidéo du am polémique mënoon naa bañ a def vidéo naan salaamaaleykum Omaro daf maa door doo am polémique parce que ñun rek fi nekkoon ay kilifa fi nekkoon. ñun ñëpp ay kilifa lan man maa bëgg coow rek maanaam man sama lépp buri wi la ma ne garaawul baal ma laa laalaale ko benn vidéo bu ndaw rek nii rek la demee mais kenn mënoon naa bañ a xam dara kenn mënoon naa bañ a yëg dara man la rek lépp man la man maa koy def nii rek yaa ngi dégg waaw noonu la demee waaw mais ñépp a ngi si jàmm ñépp ngi si jàmm waale ngi si jàmm tranquille yuusu jege ngi nii ñoo nekkoon sànq tranquille Baye Zal ñoo Baye ñoo toog ci réception bi trois heures de temps léegi la dugg néegam ma dugg sama néeg léegi la dugg néegam ma dugg sama néeg barke Serigne Babacar si waaw Baye ma man moom danoo yàgg ñu bëri yaakaaroon ne waaw boo gisee Baye da ngeen di rayante da lay def nangam déedéet Baye Zal man moom danoo yàgg Baye ba muy ànd ak Sidi lan xamante woon Baye ma man moom danoo yàgg trop trop. torop torop torop danoo yàgg de ak maa yàgg ak Baye Sall barki Serigne Babacar Sy ak maa yàgg ak moom nit ku baax la nag waxtaan nan waxtaan bu am solo ba nekk foofu di mbalagante di reetaan rek léegi léegi nii lan dugg su néeg man maa ngi sama néeg moom mi ngi néegam ñun ñëpp ñoo bokk fi nekk ma répété dama ne man Omaro Wally Seck Gab ñun ñëpp ak Sall ñoo bokk hôtel ñii rek a fi nekkul ñaaxañ loo ak Metsob rek ñoo fi nekkul ak ñoom Pascal ñoom ñoo dal ca feneen mais man Waly gàpp Youssou Dieng Ndiaga Oro Baye Sall ak Omoro ñoo bokk même hôtel lépp ci suñ biir la fii